Thank you. jërë ngeen jëf mbokku internet yi yéen ñuy seetaan suñu site bi di firi info point com tey nañu àggal leen ci élection au conseil des collectivités territoriales délégation monsieur le maire Mor maire Ida Mouride et monsieur le maire Alioune Badali, maire de la commune de Kungel, reçu par le premier magistrat de Sali Escal. loolu nag lu ñu koy xamal suñu site bi di firi info point com di xamal conseil yi nga xam ne ñoom dëkk commune Saly Escale ñu ñëw pour d'abord présenté leen sunu candidat xam ne dimanche 4 septembre bu ñuy wote ji Koungheul kii leen di woteel moom mooy candidat bi nga xam ne président Macky Sall moo ko tànn Koungheul wote yi daan yi ñu jóge élection au conseil daan neen am ñaari candidat mais population Sénégal bi yokku na yokk goo xam ne ba dëkk bu ci ëpp population rek département boobu mooy ëpp léegi nombre de candidats yi ñu fay tànn loolu moo waral département Kër masaar bu bees bi loolu moo waral Thiès ak yooyu Mbour loolu moo tax Koungheul ñu wàññi ko Kaffrine ñu wàññi ko Malem Odar rek yëpp bu ci nekk am benn candidat yàlla dimbali ni ba ki nga xam ne mooy sunu candidat di morsek di maire Ida day koo xam ne sunu xarit la waaye day koo xam ne ñun ñoo bëggoon mu nekk sax sunu candidat muy Badu Badu lii mii muy man muy Moustapha Ndong muy ñoom Madiama ñun ñëpp ba ñu wootee réunion Dakar bureau ministre Ablaye Sow ñëpp dañoo d'accord ne moom moo war a doon suñu candidat ñëpp rafetlu ko tey nag yoon la mu ñëw fi waxtaan ak ñëpp. parce que moom leen fas yéene fal dimanche muy koo xam ne foog naa ne du tey mooy première fois mu ñëw saali ba ñuy installé sax ñëw na ak ñoom badu bon ñu xool ne dimanche dañuy voté <clears throat> bureau de vote bi Koungheul la ne Koungheul leen di voté te buñ xëyee si dimanche bi leen war a voté ñu ne nañ xool ban formule leen di def ni ko yeneen communes yi defee ñun tam ñu defee ko noonu saali <coughs> mooy que ne suba ñun ñëpp ñu dajee sañc baara bokk reer fanaan buñ xëyee dimanche wut oto mu yóbbu nit ñi ñu dem vote ji loolu moo gën a yomb si nit ñi loolu mooy gën a noppal nit ñi lépp loo xam ne moo te pratique la nag ñoom daneen si dugg moom monsieur le maire ak le maire Badara Ly daneen ci dugg gën a waxtaan ak nit ñi mais daal di gërëm ñëpp di sant ñëpp toogaay bi yàgg na xaar bi yàgg na mais daf ko jar parce que président Macky Sall moo ñu ko tanal donc mom leen jappalé dimanche mom leen fas votel ma ngi gërëm ñep ma ngi ñep ñëpp wasalaam rahmatullah ma ngi nuyu conseil municipalu Sali Escale di jiital ci nuyo bi nak son maire Elage Pape Sader di sama frère sama xarit di sama lepp di nuyu Mor Seck bu baax mi ñu andal ñew fi di len jéggalu aussi bu baax ci xaar bu yàgg bi euh, daf di rek yoonu nawet la et que ñu ñëkke won misira doga wara mëna ñew ci yeen motax mu xawa a ñu ci ciy bu bari yoon bi nak yoonu jamm la comme niko ko maire waxee daanaka mom wax na lépp Mor Seck mii gisee ñu and ñew def ko parce que dañu bëgg ñiko xamul won ci yeen xam ko xamé ko mais dama gëm ne monsieur le maire rek munoon na toog fii ne leen suba ñu dem Koungheul voté li Mor Seck ñëpp génn dem votel ko suñu ànd ak moom du pour mu wax leen ngeen votel ko mais pour ngeen xàmmee ko la parce que xam naa ne li ci war muy vote bi monsieur le maire dina jël motuwaay yëpp pour que yéen ngeen ànd yéen ñëpp nekk benn dem votel Mor Seck ngir ñu fal ko comme haut conseiller des collectivité territoriales ma koy remercier ci démarche bi parce que lii mooy démarche bi nga xam ne moo approprié mooy dajale ñëpp teg leen woo ki nga xam ne mooy candidat mu ñëw jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom ñu xàmmee ko ràññee ko xam ne kat mooy ki ñu war a woteel suba parce que bu ñëwuloon nit ñi naan kan mooy Mor Seck mais su ñëwee ba fii toog seen kanam ànd ak seen maire defe naa ne di ngeen ko ràññee bu baax lu tax ñu tànn ko comme ni ko waxee ñun maire yi nekk ci gox bi yépp ñu ànd ci tànneef bi mooy jëmm ji dafa lu ñu boole man moom ak Pape Sader ba pare mooy list parallèle laa demee moom la demee moom Pape Sader moom la Mor Seck demee yàlla jox ñu ndam ñun ñett ñun ñett ñi ñoo fi demee ay list parallèle ci biir département bi yàlla jox ñu fi ndam donc loolu déjà lien la boo xam ne bu foor bu ñu lié mooy dañu bokk nu ñu amee suñu ay commune mooy dañu jël lis dem ak moom xeex nit ñi nangul ñu wóolu ñu gëm ñu jox ñu moom foofu mooy première lien bi deuxième lien bi aussi muy koo xam ne tey dafa bokk ak ñun démarche démarche bi mooy lan mooy jege sa askan nekk ci soxla sa askan saa su ne moom looloy taxawaayam defe naa ne loolu moo nekk ci Pape Sader moo nekk ci Aline Badara mm-hmm. kon foofu tamit dañ ko niroo beneen bi mujji mooy ñun ñëpp ndaw lañu ndaw nag mooy ëllëg donc ñu am ëllëg pour suñu gox ñett yooyu la ñu bokk moo tax bi ñu ne candidature Mor Seck département bi yëpp unanimement ànd ci candidature bi mais mieux yemuñu ci ànd ci dañu jël suñu engagement ñun ñëpp muy maire Pape muy Madiama muy Moustapha Ndong muy man mu yenen maire ñun ñep dañ jël initiative dox ci biir département bi taxawu ko ba nga xamne dinañ ko fal palin go xamne du am ben natable parce que li nit ñi wara xam moy vote bi dafa am spécificité spécificité bi dan la moy moor mi kese mom moy candidat bennoo bok yakar rek mo am candidat ci département bi waaye nak am lu ñuy wax liste blanche bu ngeen demee ci table bi ëllëg wala dimanche di ngeen fekk ñaari xob xobu Benno Bokk Yaakaar ak xob bu weex bi xob bu weex bi mooy ku bëggul voteel Mor Seck moom ngay jël nga voté boo ko voté vote nul lay doon rek parce que amul kenn koo xam ne candidat la bu nekk moom kon loolu yàq sa xob la rek kon candidat bi ngeen war a voteel mooy Benno Bokk Yaakaar mooy Mor Seck fii nag ni ma leen gisee ngeen toogee nii gëm naa ne yéen ñëpp di ngeen votel Mor Seck parce que monsieur le maire dafa engagé wu ci combat bi te wax na leen ko maire Mor Seck mooy candidat defe naa ne loolu laa ne woon rek naa leen ko yeggee laata Mor di jël kàddu di nuyanteeg yéen saafanteeg yéen sàkku ci yéen gunge di remercier bu baax a baax nag maire Pape Sader Dieng ak équipe municipale bi yëpp vraiment ni là, un conseil municipal doit être uni derrière son maire donc je ngi di encourager bu démarche bi di di gannaaw bu ñu leen nuyoo comme ni ko Sadar waxee Aliou Badara li waxee ko noonu demee dañuy ñëw yàlla dogal na ñun leen tànn ci au conseil bi ñu war koy woote dimanche bii di ñëw. ah ñi leen di ñëw pour tàllal leen ci loxo parce que gannaaw bu ñu tànnee ba pare yéen yéenay woote comme que conseil yi ñoo koy woote nag moo waral ñoo seet si leen dëgg la comme ni ko Badou waxee xëy na Pape Sadar kese bu leen waxoon ne la am naa kandidaa bu tudd Mor Seck dama bëgg ngeen jàppale ko da ngeen ñëw jàppale ko waaye lii dafa rafet tey ma ñëw jàkkaarloo ñëpp xëy na suba bu ñu génnee fii ku ku ci tase sa morom di nga xam ne kii la Mor Seck mi moo fi ñëwoon démb loolu itam lu ci am solo la. parce que xamante bi dafa war a nekk. parce que nit ki baa nga koy jàppale wax dëgg yàlla gis ko rafet na lool kon ñëw bi ñëw fii ñu ngi ci sant yàlla di gërëm tey lu ki jataay bi ngeen def itam di jéggul yi nag ci. soo ba léegi ngeen toog di ñuy xaar loolu ñu ngi ci jégalu bu baax di leen wax na leen ñu leen di tàllal loxo ci au bi ñu jëm nii muy dimanche ñu ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla ma ñu kàttan ñu fekkee ko te tal ko kenn ku nekk dem woote ji dellu ci jàmm ak salaam loolu la ñuy ñaan yàlla di leen ko ñaan yéen ñii. ah kon ñu ngi sant comme sa alay sada comme ni mu ko waxee eh, ñoom lañ war a jiital sax ndax bi ñu tànn ci Dakar comme ni mu ko waxee ña nekkoon ci yàlla dogal na moom mii ci la bokkoon Aliou Badara mii ci la bokkoon Moustapha Ndong meeru Missirah ci la bokkoon ma Seck ci la bokkoon euh, Alaaji Mohamed Dieng ci la bokkoon euh, ak ñeneen ak ñeneen yàlla dogal na ñoom ñëpp ñu porté combat bi kenn ku nekk te nañ ko waxoon ca saal ca ca Dakar kenn ku nekk noonu ko doxalee biñ ñëwee kon nag ba léegi man man maa leen di sant bu baax ci loolu tànn bi ngeen ma tànn ñu leen ci sant parce mën nañu wax ne président tànn na Mor Seck mais dañ ma yéen ma njëkk a tànn ba pare xëy na président bu ko neexoon mu recité ko jël keneen mais man dinaa sant dinaa leen sant ba pare da ko sant président ndax il faut ma sant leen ndax yéen a njëkkee tànn bi kon ñu ngi leen jërëjëfal lool di am kontaan itam ci accompagnement bi nga xam ne accompagné ngeen ma ko gannaaw bi ngeen ma tànnee ba pare lool moom itam ñu ngi sant bu baax a baax a baax parce que keroog ba ñu départ ba léegi DCM yi dama départ ministère ba yéeg nako ko maa ngi nii gene misir génne misira nañ dem sale mu gene ci otoom bolé ko yenen ak yenen ñoo ànd dem makk yëpp ñoo ànd dem feneen kon lool itam ñu ko sante bu baax itam li ni yeb tay mënoon na ci baña a fekk mais mom itam wax deug yalla jël na ci engagement am dina len toppatoo incha allah samedi ci ngone ngeen fanan kërëm ngeen ñëw voter ci delu si wat yii yëpp mom mom moom moo jël en charge wo dina ko toppatoo incha allah kon lool ñu len sante ñi sante Sader mi di leen sant yeen conseil bi yeb di sant Aliou Badara lii ak ñi nga xamne ñom la andal ci soobu leg ñom ñep ñi leen sant kenn ku nek turum di leen jërëjëfal dal jërëjëf. ñu ngi nuyu ñep di ci jital yi ci bi jital maire fi nek maire de sali escal di nuyu aussi le maire de maire de ni di nuyu aussi le maire de Ida Mouride nek candidat au conseil bu kungel nek suñu papa nek suñu xarit yalla bo lañ wax deug yalla ndax yalla dogal na duñ tok semaine bo xamne ne gisewuñ bokku ne si maire yi may gëna a mom ak maire Madiama sek ci CRD mu doon ni ku bax doon ni ku yaatu doon ni ku am diiné ñu def ko kilifa tamit donc bu yalla dogalé mu nekk candidat bi ñun dañ dañuy contane rafetlu bu baax a baax bi nga xamne tan nañ ko jappalé ko aussi donc le conseil municipal bu sali yakarna ñi nga xamné téw nañ fi ak ñi nga xamné dañoo am ngant ñun ñëpp dinañ fexé japp ci liggéey bi japp ci liggéey bi nak moy ñu fexé ba comme niñ ko défé won ci élection locale yi ñu fexé ba ñu ne sali sen conseil municipal bi amul ben problème ñëpp dem nañ jappalé le candidat Mor Seck loolu ñu ngi ciy woos ñax suñu bopp di si ñaax suñu conseil bi di si ñaax conseil département bi yëpp parce que li maire de Koungheul wax dafa am solo te mun nañ ko dëggal mooy ginnaaw ñoom buñ bokkee ñaari buñ bokkee liste parallèle yi ginnaaw buñ bokkee ndaw gi ñu nekk dafa am beneen mbir buñ bokk mooy Pastef bi nga xam ne am nañ ko dem di uti ay projet di ko indi boo leen xoolee ci projet yi bare muy ci FERA bi muy ci UCG bi muy ci lu bare ni mu amee di doxee saali mu ngi koy doxee Koungheul mu ngi koy doxee Ida Mouride donc loolu mbégte la. waaye nag dama ci yokk rek loo xam ne xam naa ne bokkul ci campagne bi loolu yéen ñetti mairie laa koy wala mairie Koungheul ni ngeen di àndee ci politique bi nu muy neexee nu muy rafete bëgg nañ ngeen koy àndee di tëggandoo ay projet di dem dakaar di ko indindoo ñu koy partager ci commune yi yàgg naa ko wax fu ne dañ koy gën a waxaat parce que dama ko gis ci ay gox dama ko gis ci ay gox yow mën nga ma seede gis nañ ko si benn gox loolu dañ ko intercommunalité boobu noonu wax naa ko yaakaar na mos naa ko wax tey ni ngay defaree espace vert yooyu bëgg nañ suñu buntu maire yi wala bëgg nañ suñu stade bi bëgg nañ ñu am ay bërëb yu rafet ñun tamit lan la saali am loo xam ne mën na ko dimbalee Koungheul est-ce que ci wàllu suuf la wala lu mën a doon Ida Mouride yàlla boole nañu ñu bokk li nga xam ne mooy géej gi ak Koungheul mooy kii bi mooy bassin bi nga Nanija Bolon bi déjà l'intercommunalité intercommunalité forcée la mbir yoy ko dundal buñ ko dundalé même bu fekkente ne moyen état ñew mënu ñu très dem résilience lool la leen di ñaax ngeen bu li wéso ngeen tok waxtaan ay projet ngeen ku vraiment c'est un cri de cœur parce que ko wax man mënu moko def mais yeen yeen ko meuna jité jiite mom vraiment mang koy encore une fois di ko renouveler bëgg ngeen taxaw num gëna gaawé intercommunalité bi warna am au niveau du département parce que amut té yeen yalla boole leen ngeen nek ay xarit di di demlante fexé leen intercommunalité bobu non fofu lay lu lañ amone ci cadre di gërëm ci sant. ñep kenn ki ne turum ak santam di nuyu gan di leen dalal ci conseil municipal bi di leen wax ne wax di gaay wax nañ lepp comme ko suñu maire ne ñen japp ci liste bi di def lu jàpp ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen mastaw coono si yoon bi di nuyu conseil municipal bi yëpp nag rawat na sama mbokk jigéen ñi ndax jotaay bi yàgg na lool waaye ñu ngi leen si jéggalu xañ na yoonu politik moo demee noonu ni nga ko bëggee doo koo ko amee ngir gën jëf